man maa ko uuf wat ko man ak euh, taaw yaayam sax man lañ ko tuddee dëgg yàlla xale bu sérieux la amul benn problème man des fois ma dem ci ga wax ba ñibbi sax fàtte koo laaj ñu ne mi ngi ci néeg bi amul benn problème bu jaay gee daal ñëw toog seen kër daal lañ ko xamee xëy naa ndogal moo ñëw rek lu war ko dal rek ndax waajutoon dem sax voilà waajutoon dem jëndoon na cereem ba toog ci mbedd mi pour lekk ko après daal euh, gis ne am na xale yu dem mu dem daal di leen jëli xëj na lu ko waroon dal la rek. ñëwoon nañ fi seet ko léegi chaque jour bu ñu xëyee wax dëgg yàlla dina am ñaari policiers yi ñëw seet ko. ordonnance wax dëgg yàlla amaguñ ci benn problème parce que bi ko affaire bi dalee dañoo bindoon ordonnance jënd bagage yëpp xam nga moom toujours noonu la reyaa dañuy jënd garab yu bëree bëri bëri teg bu ko defee depuis loolu daal ñu benn kii defal nañ ko rajo def ko scanner yi waaw mu ngi reyaa nag génnagul waaye ñu ngi sant yàlla. comme boobu ba léegi deewu daal ñu ngi ciy am yaakaar bu baax a baax a baax. dem nañ gis ko barki démb bi ma fa demee yëkkati na bopp bi après yëkkati na loxo bi xam naa yaram bi daal moo moo moom la mënul dara daal. noonoo non waxuñoo moom daal. ñu ngi sant yàlla bu baax daal ñun ñi sax ñu ngi sant yàlla bu baax ñun parents yi ndax foogoon nañ ne heure bi moom wax dëgg yàlla du ko fekk ndax choc bi moom ku ko gis rek dee na nga wax waaw kon mu ngi xoole ba léegi daal ñu ngi ci am yaakaar. ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax yu mel ni toujours rek ñi ci woyof bopp ñoo ci ñooy gàddu euh, bagage yi dëgg yàlla moom waajutoon sax waajutoon waaye nag comme dako ko war a dal rek mu dal ko ñu di ci sant yàlla bu baax a baax a baax ndax xëj na mënoon na gën a métti wala mu dee ci saa si waaw moromam it macha allah chaque jour de barki de ma maa leen wax sax bu leen demati ket a sonn chaque jour ñu dem indi ay cent mille cent nanga mille presque trois jours indi nañ lu mat quatre cent mille deug yalla man mi maa leen wax kérok ni len dal dalu len nak li ci dess ñaan rek mo ci dess ngeen demé di julli di ko ñaanal yalla def mu doon goné go xamné ñepp am ci mom yaakar ñepp ko sop wax deug non rek la demee xana di def attention rek ci xalé yi comme xalé yi mënu ñu ñak manifesté wu euh, ñu def attention ci ñom parce que kuñ ci ray da ngay perte rek da am fenn amo fenn fu ñuy gi doom pour étranger ko ñuy ñaan rek buy amatee daal ñuy def attention di daw lim doon daw bari na trop trop trop ci ay biir nit su nekkoon ne bëggoo rayit wala bëggoo gaañit ah seytaane bu ci jàppee il faut nga gaañ wala nga rey ndax lim doon daw boo ko xoolee da nga naan kii dafa mel ni ku nekk autoroute te ki ay nit la doon daw di jëbale waaw xëy na nag yàlla moo ko dogal ñun nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax commissaire yónnee woon na ne daal problème bu ñu am rek nañ ko na ko na ko yëg wax dëgg yàlla te chaque jour bu xëyee yónnee ay ndawam ñu ñëw xool si ko waaw loolu la daal ak di sant ñëpp nag di jërëm ñëpp nag ñëpp sonn nañ ci mbokk yi am di jàmm dëkkandoo yi ñi ko jurul sax ñi ko jurul sax wax dëgg yàlla sonn nañ ñëpp a ngi ñaan ñu yokk ñaani rek yàlla delloo ko ci sagoom loolu daal lañuy ñaan nit ñi waaw yàlla jàppale ko ba mu doxi soxlaa mi ci barke Seexu Tijaan ci barke Baay Ñas ak baayam